asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sang ji ñëwaat nañu ak yéen ci sunu juróom-ñaareelu jataay muy septième leçon bi incha allah ci iji bi muy xarfa xaa léegi nag bii mooy gën a dëgër xaa ndax tomb bi عندي خا خي خو أخ خن خن خن خا خي خو حرف خاء خاء خا خي خو أخ خن خن خن خا خي خو حرف خاء خ خي Ku, ag gen gin groen ga gi ku. tabarakallahu ngi noonu allah ديك داجي بنان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته